asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaari digg bëccëg bi bàyyeekoo QTV ak Q Radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd Xadijatu Kole ñu seeti bopp xibaar yi. njiitu réew mi président Adama Barrow dem na sa dëkkub Saudi Arabia bu nar faa am semaine bu tuppee ci wàllu liggéeyam balaa moo dellu si waat moom président Adama Barrow dina fa def na naka umra. ci nemmeeku bu nekk di def ñu nekk di liggéey ci wàllu kaaraanga bi. Chief of Defence Staff Lieutenant General Yankuba A ci talaata bi yegg na sa Farafenni si dëkk bu ñu naan Kër Ayib demit Salameen Koto ba tey ci boppu xibaar yi Gambia Police Force jàpp ne ñaari nit yu ñu tuuma ne dañ sàcc ay bagages ci benn kër bu nekk sa West Coast Region muy diwaanu Brikama bi mbokk yi li doonoon boppu xibaar yi ñu taxilu bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgum tey bi suñu xibaar bu njëkk bu ngi dem si njiitu réew mi président Adama Barrow moom yegg na sa Saudi Arabia pour nemmeeku fa mu tuppee naka ci wàllu liggéeyam ñu ngi xamle ne balaa njiitu réew mi di dellusiwaat ci biir réewu Gambie bi dina def naka umra. ci nemmeeku mu nekk di def ci dëkkub Saudi Arabia bi mu tubbee ci wàllub liggéeyam président Adama Barrow dina def naka umra balaa moo dellu ci waat ci biir réewub Gambia bi nemmeekom bi naka mu ngi fa dem pour naka fekkee bureau bu ñu nar a samp pour Gambia seeni embassy bi mu toog fa ak itamit ci place boo xam ne naka foofu la war a dëkk umra nag dafa bokk ci ponkub islam yi te nit ñi nag di ko defee sa màkka te naka doon na loo xam ne naka mun nga koo def ci biir at bi saa yi mu la neexee bokkul ak xaj xaj naka doon na purification boo xam ne moom dañ ko jàppal date ci calendar islam bi njiitu réew mi président Adama Barrow ci nemmeeku bu nekk di def sa Saudi Arabia soxnaam si di First Lady Fatoumatta Bah Barrow mu ngi ci ànd ak moom ak yeneen kilifa yoo xam ne naka ñu ngi liggéey ci banqaasum nguur gi Gambia ak Saudi Arabia seeni kóllëre bi yàgg na naka depuis ci ay at ci ginnaaw te naka doon na dëkk bu dee doole réewub Gambie bi bu ñëwee naka ci yenn jafe-jafe yi tamit dañ leen dee dooleel ci yenn yokkute yoo xam ne naka ñu ngi ñëw ci biir réewub Gambie bi bokk na ci ndajewu OIC summit bu war am si atum 2022 bi yoon na doon na yoon bu njëkk njiitu premier président Adama Barrow dem naka sa dëkkub Saudi Arabia bi depuis ba mu jëlee ngur gi ci atum 2017 ba tey ci nemmeeku mu nekk di def ci place yoo xam ne nag ñu nekk di liggéey ci wàllu kaaraange bi ñu ngi fa chief of defence staff di wuyoo ci lieutenant général Yankuba A Dramé yegg na nag sa Farafeñe seen dëkk bu ñu naan Kër Ayib ak Lamen Kota lii nag mu ngi ko def ci talaata bi boobale xibaar nañ si teewloo Biram S Diop mu gën ñu ko yaatalal chief of defence staff bu Gambia Armed Forces di lieutenant Yankuba A Dramé moom nag am na ñaareelu fan yi bi nga xam ne que commencé woon na ko bi ne passé pour war a mun a dem nag nemmeeku mi yenn béréb yi nekk fii nii si biir réew mi moom nag loo taxoon bi muy wóor talaata bi ne passé di demba ba loo taxoon nag bi nga xam ne que demoon na ko barki demba di talaata bi ne passé àggoon na fu ne si biir Farafeñi Kër Ayib ak fu ñu moom gannaaw bu fa demee nag rafetlu na baax a baax muy taxawaay bi nga xam ne ko ko ak li nga xam ne moom ni ko ko dal di ko yaakaaree moom nag am na nag ab tutu garab nga tutu woon na ko fa mu soog faa jéego nag dem nag am waxtaan nga seqoon na ko ak ñu nga xam ne ñoo nekk si boobu kaam moom nag rafetlu na baax a baax taxawaay bi nga xam si boppam ne def nañ ko ndete mu ne soldaar nag si boppam ne ñëpp xamoon ne ne amoon na nag diggante bu nga xam ne moo ko si diggante soldaar ak askan bi waaye mu ne nag loolu si boppam nag nekk na lu nga xam ne si boppam de mun nañoo ne nag amatut te mu ne ñàkk am boobu si boppam am na bu baax a baax li nga xam ne moo nekk yokkute si ñu gën a mun a nekk di rafetee mu ne kon nag mu ngi jéem a ñaax soldat ne dinañ jéem a bàyyi seen xel ne nag soldat xamee ko politique te képp ku nga xam si boppam nag nar ngaa duggal si politique nga jéem a xam ne ñoom soldat amuñ benn buntu amuñ tam benn xalaat ak benn façon ngi yaakaar bu ñu leen war a yaakaaree ñu war a dugg si fànn muy politique mu ne képp ku nga xam ne gis na ne yaa ngi dugal seen loxo si wàllum politique du def dara su may jëm a jëflanteeg yow ndegte loolu duñ ko mos a caaxaane si benn yoon mu ne politique nañ ko bàyyi muy politicien si ñoom soldaari yi lu leen xamee ne muy wàllum karange ak lépp lu nga xam ne moom la moo dali nduróol mu ne nag moom dina fas yéene pour gis naka njiit bu yi nga xam ne su bopp nag am na ko mu fas yéene ko continuer ko si li nga xam ne noonu la moo gën a mun a nekk di rafetee. brigadier général di Ousmane Gomes nekk commandant bu Gambie National Army moom nag ñaax na bu baax soldats yi ne. neen jéem a def seen kéem kàttan naka jéem a góom ne naka ñoom la réew mi daal yaakaar si fànn muy bunte kaaraange mu ne kon gannaaw nga xam ne réew mi nag ñoom lañ yaakaar si bunte kaaraange neen jéem a def seen warugal pour jéem seet naka la ñoo war a mun a continuer di aar bu baax a baax suñu wàllum dëkkuwaay mu ne kon nañ xam ne askan bi nekkul doon nooni soldaar yi te soldaar yi itam nekkul noonu askan bi waaye nag baax na lool pour jéem a dimbal naka muy soldaar yi si lépp lu nga xam ne moom leen xam mbaa moom lañ yëg ne mun na moo am nag fitna di war a mun a am fii si biir réew mi ku ñu xamee si delloo Ba nekk député permanent secrétaire yi si buntu liggéeykaay nguur gi ñu amee muy wàll muy kaaraange moom nag ñaax na bu baax a baax muy ne képp ku nekk soldat nekk fii si biir réew mi na nga a continuer jom bii nga xam ne si boppam ne moom nga am ak moom leen xamee bu baax a baax soldat yi jamono ji fii nii si biir réew mi mu ne léegi képp ku nga xam ne wax ne ne yaa ngi nekk soldat rek bëri dañoo baaxoo di la pugaroo ñu bëri dañoo paaxoo di la ndamoo te ko waral moo nekk diggante bu rafet ak li nga xam ne moo nekk muy tey bu solaari tey fii si biir réew mi mu ne kon nag am na yaakaar ne su doonee muy CDS bi di Yankuba Dramé dinañ gën a am naka muy yaakaar si kanam yi muy soldaar si lépp lu nga xam ne mooy war a mun a jur jàmm fii si biir mi mbokk yi bu ñu bàyyeekoo ci xibaar boobu ñu dem seeti Gambia police force jàpp na ñaari nit yoo xam ne naka dañu tuuma ne dañu sàcc ci benn kër goo xam ne naka mu ngi sa diwaanu Brikama kenn ki naka ñu ne mu ngi wuyoo ci Amadou Diallo toll naka si fanweeri atam keneen ki toll si fukki at ak ñeent génne wuñ turam ndax lu ko waral naka mooy at goo xam ne naka mu ngi ko am ab tu tànk la ñii naka tuuma nañ ne dañu sàcc naka télé yu mag rayda ak yeneen i juntuwaay yoo xam ne naka yu am solo la police PRO bi di wuyoo si Superintendent Lamin Jaay moom naka wax ne na ñi nga xam ne naka jàpp nañ leen dëggal nañ ne naka ñoom ñoo sàcc bagage yooyu noonu bagage yoo xam ne naka jàpp nañ ko ci loxo ñi ne ñu ngi ko yóbbu naka sa Banjuling police station police yi naka ñu ngi ñaax askan wi pour képp koo xam ne naka réer la nga si fan yi nii na nga dem naka seeti bagage yooyu bu dee sa bagage mu ngi bu boobaa naka nañ la ko delloo police Piaro Ndiaye mu continué di wax ne tout tànk boo xam ne naka jàpp nañ ko mu bokk naka si ñoo xam ne ñoo dee sàcc moom naka wax na dëgg bi ñi nga xam ne naka ñooy police yi mu ne moom naka mag ñi dañ ko dee dugal naka si yenn mbir yoo xam ne naka mu ngi jëmee ci wàllum njuuj njaaj te naka lu ci gën a bari moom dañ ko dee yónnee si banque bi pour mu dem naka xool bàyyi xel ni ñoo xam ne naka ñoo fa génnee xaalis bu bari bu boobaa naka daf leen di topp ba fu ñu yem bu boobaa naka mu dem wax ko ñi nga xam ne naka ñooy magami pour naka ñu dem sàcc ji mu continué di wax ne tamit bu fekkee ne naka dugg na ci biir moto daf dee xool naka lan moo nekk ci moto bi ban jumtuwaay boo xam ne naka am na solo bu boobaa naka moom dina yeggee xibaar boobu ñi nga xam ne naka ñooñu la di àndal pour dem sàcc ji bu boobaa naka bu ñu paree ñu dem naka sàcc bagage yooyu police yi ñu ne si jamono ji naka jàpp nañ ñenn ñoo xam ne naka tout tànk boobu tuuma ne na ne ñoo ñoo ko dee yónni naka pour mu dem def mbir yu mel noonu te naka police yi ñu ne ñoom ñu ngi continuer def ab gestu jëmale ko naka ci mbir mi police piaro bi moom wax na ne si jamono ji ñu bari naka ñu ngee joytu ne sàcc yaa ngi bari naka ci seenub duwaan bi te naka ñu bari ñoo xam ne naka ñoo joytu sàcc bi ne ñoo naka dañ dee yàq seenub néeg yi di fa dugg di sàcc surtout ñoo xam ne naka ñu ngee yeewoo sa Banjul ak ñoo xam ne tamit ñu ngee yeewoo sa diwaanu West Coast Region police bi aro bi mu ne loolu moo tax nag ñoom ñu jël matuwaay yu dëgër pour gis ne nag wërantu nañ ci place yooyu gestu nag lu jëmee ci wàll nju njaaj boobu ak ni ñoo def na nag pour jàpp ñooñu commissionnaire Diallo moom it ñaax na askan wi surtout ñoo xam ne naka ñu ngi dugal seen loxo lu jëmee ci wàllum njuuj njaaj wala sax wàllum ñaawteef pour naka ñu bàyyi seen i xel wee ci doxalin ndax naka police yi ñoom duñ bàyyi benn yoon ci xeex bu ñu nekk di def naka pour génnee njuuj njaaj wala ñaawteef ci biir réewu Gambie bi te naka mu ne mu ngi xamal askan wi ne képp koo xam ne rek jàpp nañ la yaa ngi def façon ñaawteef gi nii dina la yóbbu naka ci kanamu luwaa mu ñaar ñoo xam ne naka arrest nañ leen si jamono ji naka nañ leen yóbbu ci ettu àttekaay bi atte leen naka lu jëmee ci mbir yoo xam ne naka looloo tax ñu jàpp leen. mbokk yi ba rek ci xibaar yi Gambia Red Cross Society ñoom am na ndimbal bu bayeekoo ci banxaasub UNICEF bi ndimbal boo xam ne nag UNICEF jox nañ leen ko mu ngi dem naka si jumtuwaay boo xam ne dañ ko jëfandikoo pour setal seen loxo ak yeneen jumtuwaay yoo xam ne naka daf leen di jàppale ci seen wàllu wér gu yaram bi boobale xibaar nañ si teewlu Biram Es Diop mu yaatalal ñu ko di Gambia Red Cross Society talaata bi ni passé nag am na ab ndimbal mu nga xam ne si bopp ne amoon nañ koy mu dalee bay ko si UNICEF UNICEF mu nekk mbootaay bu amee mu wàllum jëm kanam tuur tànk si àdduna bi ak fii si biir réew yi te nag bagages yi bokk na si muy bagage settalekaay ak wàllum seddalekaay ak ñoo war a mun a yëkkate muy bunti wér-gu-yaram dem comme ni ko nit yi dal di koy yaakaaree lii ñu ko gën a xamee si hygiene and public health related emergencies loolu taxoon na si boppam nag muy Gambia Red Cross nekk nañ ab kuréel bi nga xam ne si boppam li leen tax a lépp lu nga xam ne mooy war a mën a dimbale askan fekk na du fa benn butut nat ko war a mën a jëlee si askan bi moo tax ñoom si boppam ñu gisoon ne nag ndimbal bi nii dina ñëw pour jàppaleen pour ñu war ko mën a jàppale si ñeneen ñu ko war a mën a ko bànneexoo moo tax nag ñu ne ndox bokk na si jumtuwaay bi nga xam ne doomu aadama nag muntu dem fekk nag amut ko te ko nag ndox ba sell dina war a tax nit ki tam nga war a a am bu baax a baax li nga xam ne ngay war mun a sétalee sa bopp ak nooy war a mën a yokk ko sa buntu wér gu yaram loolu moo taxoon si kër bi su nekk Alassane Senghor nekk secrétaire général bu Gambie Red Cross Society moom nekk rafetlu nu baax a baax muy jéego bi nga xam ne si boppam rek UNICEF jël nañ ko jàppale ko muy Gambie Red Cross Society te mu a ñoom xam ne ne ndox lu am solo la te ndox si boppam soo ko amee nga am nag tuut tànk dina am solo lool pour nga gis ne que tuut tànk bii nii dina mun a muccandiku ak jëmam muccandiku si fànn mu yenn feebar yi nga xam ne de tilim ak ñàkk am lu laa war a mun a nekk setal moo koy baaxoo di ko waral mu ne moom nag am na mbégte pour gis na ndimbal bii nii ñu ngi koy yóbbu si ñi nga xam ne ñoo koy gën a mun a dalli soxla mun ne ñoom nag si Gambia Red Cross Society am nañu yaakaar ne ndimbal bi nga xam ne jox ne leen ko mu nekk ay yenn saabu nekk ay yenn tànge ndox ak yeneen jumtuwaay yu nga xam ne si boppam ne jumtuwaay setalee kaay la nar ko war a mun a dugal si ñi nga xam ne ñoo ko daldi ko soxla mu ne kon c'est que nit ñi nag jàppale ne leen ñu am yenn bagage yi nga xam ne dañoo war a mën a dimbale seen bopp pour yokk wàllum set ak sellal wi kon mu ngi mel ni comme feebar dina dale wàññeeku te su feebar demee ba wàññeeku rek mu ngi mel ni comme koom-koom dina gën a bëri su koom-koom bëri mu ngi mel ni comme yokkute dafa gën a mun a dale bëri fii si biir réew mi si wàllam moom mu nekk Gordon Jonathan Lewis nekk UNICEF ku leen toogal fii si biir réew mi moom nag rafetlu na bu baax a baax mu jéego bi nga xam ne bërëb liggéeykaay mi am nañ ko nar ko war a mun a dugal si yenn bërëb yi nekk fii si biir réew mi mu ne kon nag gis na nag ndimbaleekaay bi nga xam ne su bopp ne ñoom fas na pour nar ko war a mën a dal di koy yokku nekk na jubtuwaay bu nga xam ne dina war a tax pour ni ñi gën mun a matale wàllum seet ak wàllum selal mu ne kon nag lu tax ba ñoom ñi ñu tànn UNICEF mooy ñu war a mun a continuer di liggéey ak ñoom ndax ñoom ñi ñu ngi dimbale askan wi te fekk nekkoon fa seet benn façon ngi butut moom Mister Lewes mu daal di yaatalaa nag mu ne kon nag lii nekk na si yenn si jéego yi nga xam ne UNICEF ñu ngi ko fas yéene pour ko def mu ne nag yii bokk na si yenn yi nga xam ne fas yéene di ko def pour gis naka nit ñi dina war a mun a daal di bànneexoo si yenn si ndimbal yi nga xam ne moom lañ daal di am pour nat ko war a mun a jox askan bi si wàllam moom nag mu nekk Caabaay Seydi naka directeur bu water resources moom naka gërëm na bu baax a baax mu UNICEF ak Gambia Red Cross Society si mbooloo bu ne booloo nañ ko nat ko war a mun a dimbale askan bi mu ne ñoom nag seen liggéey moo ñu gis nag dina war a baaxoo di seet muy wàllum ndox mi te kon nag mu ne ndegam lii nag bokk na nag pour gis na nit ñi war a am ndox bu sell wala ni nga xamante ne léegoo leen ndikki tam am na nooy amee ndox tam mun na daal di la lor mu ne kon baax na lool pour nit ñi ñu war a mun a seet ni ñoo war a mun a moytandiku ak jéem a mun a sellal wàllum ndox mi fii si biir réew mi mu ne ñoom nag léegoo lañ leen def seen kéem kattan pour gis naka mu yenn si matière yi nga xam ne moom la ñu war a mun a daldi jëfandikoo pour nga gis ne ndox mi du war a mun a yàqu ak tam du war a mun am dara lu nga xam ne moo koy war a mun a yàq si fanamu tilim ñu ne fii nag si biir réew yi nag naka natt neen ba gis ne naka si fanamu wér-gu-yaram bi su nekk ni wàllum téeméer la juróom-ñaar fukki yëpp suñu ab ndaw su ñàkkee seen bakkan naka mun nañoo gëm ne lu ko sabab moo nekk muy wàllum feebar yi li nga xamee si diarrhée mu nekk muy feebari biir bu daw mbaa malaria muy feebari sibiru mbaa mu nekk pneumonie nekk feebari sedde ak malnutrition nekk feebar bu nga xam si bopp nit ki ñàkk am lekk bu doy mbaa lekk bu sell moo koy baaxoo di ko waral te mu ne lii nii yëpp mu ngi daal di sababtoo si fan am ndox bu sell mbokk yi suñu xibaar bu mujj mu ngi dem si kilifa gu ñu naan colonel Michael Lee mu bokk naka ci taxader yoo xam ne naka ñu ngi nekk sa dëkkub US gi moom naka la ñuy yónni pour mu doon naka embassy bu leen di toogal sa dëkkub Dakar bi si jamono joo xam ne naka mu ngi toog sa Dakar mu ngi am yéene pour naka nemmeeku ci dëkkub Gambie bi waxtaan ak ñi nga xam ne naka ñoo nekk ci wàllub kaaraange bi xam naka doxalinub liggéey bi ñooy naka ci talaata bi yegg si na si Banjul àndandoo ci ak ministre bi saytu wàllub kaaraange bi muy ci Cheikh Omar Faye colonel Michael Lee xam ne ab kilifa la bu ñëwee naka ci wàllub taqada te naka yegg na sa Dakar senegal ay weer ci ginnaaw boobu ba tey naka am na yéene pour yeg ci si biir réewub Gambie bi pour lëkkaloo ak ñi nga xam ne naka ñooy Gambie en forces bi muy ñoo xam ne ñoo nekk di liggéey ci wàllub kaaraange bi ci biir réewub Gambie bi lii ba mu yegsee si biir réewub Gambie bi dem na naka si bureau minister of defence staff bu réewub Gambie bi te naka US seeni ambassadeur bu toog ci biir réewub Gambie bi muy US si Richard moo ko gunge te naka sax foofu moom Richard naka jaajëfal na taxadari réewi Gambie bi taxawaay boo xam ne naka ñu ngi ko jël pour indi yokkute ci seen wàllu liggéey bi ak jàmm joo xam ne naka mu ngi ci biir réewu bi colonel Michael lii moom wax na ne nemeeku boo xam ne naka mu ngi ko def kilifa yoo xam ne ñu ngi nekk ci wàllub kaaraange bi ak ministre buy seeti wàllu bitim réew bi doon mbir boo xam ne naka ab yokkute la mu continuer di wax ne mbirub kaaraange moom continuer di doon ab jafe ci dëkk yoo xam ne naka ñu ngi ci biir réewu Afrique bi te naka am na yaakaar ne lëkkaloo naka moo ko saafaraal mu ne ci liggéey boo xam ne naka def na ko ci dëkk yoo xam ne ñu ngi ci biir Afrique gestu na ne naka am na jafe-jafe yu bari yoo xam ne naka ñu ngi seen wàllu liggéey bi te loolu lu koy mën a saafaraal mooy neen ñu lëkkaloo gis na naka xeex nañ ko génnee ko ci seen wàllu liggéey bi mu ne nemmeeku boo xam ne naka def na ko ci biir réewu Gàmbi bi moom daf ko gisee ne ab yokkute la bu ñëwee naka ci mbirub kaarange bi mu ne kaarange bu amee ci biir réewu Gàmbi bi nañ gëm ne naka kaarange am na ci dëkk yoo xam ne naka ñu ngi si Afrique sowu jant te naka dëkk yu si Afrique sowu jant bu fekkee ne am nañ kaarange bu dëggu jàpp ne nag àddina si yëpp am kaarange bu dëggum Cheikh Omar Faye doon minister of defence staff ginnaaw doon gaaral kàddoom ci taxawaay boo xam ne naka jël na ko pour dalal naka colonel Lee ak ambassadeur Pascal jaajëfal na naka nguurub US bi ci lëkkaloo boo xam ne naka def nañ ko ak nguurub Gambie bi pour gis ne naka indi nañ yokkute ci ñaari dëkk yi ministre Faye mu continué di wax ne. am na yaakaar ne naka nemmeeku bi dina gën a rataxal kóllëre gu nekk ci diggante ñaari réew mi fay continué di wax ne réewub Gambie bi ak dëkkub United States bi yàgg nañ di lëkkaloo lu jëmee ci mbirub kaaraange bi surtout ci lëkkaloo boo xam ne naka defoon nañ ko pour xeex naka wéy fi piñ ak yeneen mbir yoo xam ne naka def nañ ko lëkkaloo ci naka pour indi jàmm ci biir àddina si mu ne naka te yoon bi dinañ def na naka lu ëpp loolu si bennum ndaje bi waaye beneenum taxawaay ci àllarba bi minister of defence staff bi moom naka yegg na ci place bu ñu naan quick reaction force bureau bi nekk di liggéey ci ron lieutenant colonel Omar Bojang ba ñu bàyyi ko foofu yegg nañ International Republican Guards bi ak it place bu ñu naan Joint Operations Center ñu bàyyi ko foofu tamit yegg nañ sa Joint Officers Mess sa foofu naka la ñu tëral yenn sat yoo xam ne dëggal nañ ne loolu la ñoo jëfandikoo ci seen wàllub liggéey bi ministre Faye mu wax ne naka nemmeeku bu nekk di def ci place yoo xam ne ñu ngi liggéey ci wàllub kaaraange bi doon na mbir boo xam ne naka dafa bokk ci préparé bu ñu nekk di def pour gis naka dëggal nañ seenub liggéey ci biir réew mi mu ne tamit daf ko nekk di def pour yeggal kàddu goo xam ne naka njiitu réew mi wax na ko ko muy jaajëfal naka ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu kaaraange bi ci yokkute dëggu ak itamit dooleel boo xam ne naka ñu ngi ko def ci liggéey bi pour gis ne naka aar nañ bakkanub askan bi yeewoo ci biir réewu Gambie bi mu continuer di leen ñaax ne pour ñu continuer liggéey bu rafet boo xam ne naka ñu ngi koo def bi mu doon ka kàddoom wax ne naka mbir mu jëmee ci ndaje boo xam ne naka kilifa yu bokkoon ci banxaasub ECOWAS bi def nañ ko sa dëkkub Gaana bi ginnaaw loolu tamit wax na naka lu jëmee ci mbirub kaaraange bi ak it seen taxawaayub liggéey bi ak it sata yoo xam ne naka ñu ngi ko nar a tëral pour gis ne naka génn ñoo dëgëral mbirub kaaraange bi ci biir réewu Gambia bi mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon yaatale ngeen di si doon ànd Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu mel ñu ñi yendoog jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi wasalaam